bu nekkee tey fi mu nekk nii man jàpp naa ne même bu fekkente ne amul diplôme sax mérito na ko ndax xam nga lu tax parce que dafa xeexal Sénégal xeexal réewam dem ci kaso yaa ngi dégg def lu nekk dëgg la nag Pape Alé Niang far na ci Sonko Sonko la faral journaliste wut a far yooyu yëpp dëgg la mais tamit loolu man mënuma cee wax dara xam nga lu tax parce que ñun danoo amoon gouvernement di fol num ñu neexee di follee num ñu neexee yaa ngi dégg ku xool assemblée national la fa nekkoon ah comme marché bu tas moo rawoon suppu jaan ña fa nekk jànguñu amuñu ay diplôme xulloo lan fa nekkee woon dàggasante xasante dóorante taasonte regocante kon loolu noonu noonu buñ ko amoon ñun ci suñ gouvernement mu nekkoon fa ma gis ko tekki sama bët ak ñuy fole ñu nu neexee di fole ñu nu neexee kon ñii tey buñ defee Pape Alé Niang wala ñu def keneen ak keneen keneen waruñu cee wax nan leen ñaanal rek yaa ngi dégg ah, même buñ amul diplôme ah def loo xamante si nii ñi am diplôme sax amuñu xalaat bi pour def ko fa yàlla defal ko jàmm fa mu nekk ndax Pape Alé Niang mu wax dëgg yàlla mérito na ko yaa ngi dégg euh, Moussa Fall wàccee nañu ko fal keneen Moussa Fall jaanam wàcc na li waroon a def yëpp def na ko wàccee nañ ko tey fal keneen gars yi nan nangu xam nga tey jii ñii mënoo leen a critique critique critique ba tax ñu wàcc cinq ans yi moom dañ koy jeexal fa force mënoo critique ba jekk-jekk daan ne arrêté yi day wàcc ñun ñu defaat élection yi mënut a nekk kon nañ leen ñaanal yaa ngi dégg ñu xool xibbi suñuy bët tant que ñi ngi def loo xam ne mi ngi jëmale réew mi kanam ñu ànd ceeg ñoom tant que ñi ngi def loo xamante ni safaan wala ñu attaqué leen ndax ñun peuple bi leen fi nekk jeunesse bi te ci dëgg lañ dox kon daal mi ngi noonu ah nanu xam ne lii ñu def nii ñoom ñoom njëkkewuñ ko njëkkewuñ ko de parce que danoo ñëw fekk fi ñoo xam ne dañuy fol di folli ni mu leen neexee ah ku leen neex la ni fol tey bu subaa ñu teg ko teg keneen kon noonu la demee rek waaw ba tey may leeral waaw ba tey may leeral di leen wax ne leen man aadama ci dëgg laay dox ci dëgg rek la ma nit ñi xamee waaw kon Pape Alé Niang yàlla ko yàlla defal jàmm ca RTS jërë ngeen jëf